ministère bu président bi mu war a def fii ci suñu département de Rufisque ñun jigéen ñi fas def gannaaw parce que ñun yàlla dafa def ñu bëgg la président Macky Sall di ko liggéeyal fii ci département de Rufisque ak suñu coordinateur monsieur Omar Gueye ak les trois coordinateurs yi ñu nekkal Abdou Salam Gueye honorable député Souleymane taxaw fii nag taxawaay bu am solo ba nga xam ne président bu ñëwee dina xam ne les femmes de département de Rufisque ñu ngi liggéey liggéey bu am solo pour émergent bi muy def pour liggéey bi muy liggéey jàppaleel ñu ko surtout Diamniadio ji ñu dëkk yi ñu nekk bokk ak euh, département Diamniadio bokk ci Rufisque ñu fas yéene cee bay suñu waar ba président Macky Sall kontaan ci ñun gën a kontaan ci ñun yàgg na kontaan ci ñun ñu gën a kontaan ci ñun ndax ñun lu ñu bokk duñ ca des gannaaw présidente des femmes de euh, nationale Ndeye Marème Badiane parce que moom it mu ngi accompagner président fu mu ne kon ñun jigéen ñi mu ngi ci ginnaawam taxaw fas yéene xaar président Macky Sall liggéey nag liggéey bu am solo ak ñëpp ñu ñu àndal fii ci département bi.